te dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war Sénégal war ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbban asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ak mbokk internautes yi tey nag dañoo fas yéene délocalisé wu jóge euh, fële ci suñu bureau ca TMS TV ñëw nag fii ci Médina Médina nag ci Ruelle 11 fii ci Médina nag ñu ñëw nag jàkkaarloog ñi nga xamante ni moo di euh, les cordonniers maanaam cordonniers yi nga xamante ni dañuy defar ay dàll gis ngeen nag nii ci image yi ñooy gis nag euh, waa jile ah macha allah mu ngi defar ay dàll di ko placer yéen a ngi gis aussi tam ci sama ginnaaw ci boutique bi ñu ngi placé ay dàll di ko defar di ko di ko placé donc mu nekk li nga xamante ni ay initiative yu baax la ci réew day ko euh, li nga xamante ni moo di économiquement réew mi koom-koom waaye itam dina daal di jëmale kanam réew mi te yokk itam li nga xamante ni moo di wàllum liggéey donc ci loolu mbokk téléspectateurs yi euh, ñu ngi nuyu ziar ki nga xamante ni moo di le PDG de la TMS TV di ñi nga xamante ni mooy suñu doyen yi ñoo ngi ziar ñoom ñëpp di ziar nag euh, suñu euh, ki nekk ci digital bi di fàllu fàllu ñu ngi lay ziar bu baax a baax kon nag mbokk téléspectateurs yi ñu tàmbali li nga xamante ni moo di maanaam li nga xamante ni moo di waxtaan ba donc amee internet yi dinaa ko laaj tout d'abord li nga xamante moo di tuuram ak santam donc sëñ bi tuur beeg sant bi ak fan fan nga dëkk. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk téléspectateur yëpp Gallo Ndiaye laa tudd dëkk Diourbel Diourbel laa jógee ñëw fii di liggéey waaw. alors euh, Gallo euh, donc amoon nañ mbégte ak moo euh, féddal ak yow li nga xamante ni moo di émission mode beauté et tendance donc émission boobu dinaa leen rappeler que ni émission boobu li ko tax a jóg rek mooy fësal ñi nga xamante ni ñu nekk ci wàllum art ñi nga xamante ni dañuy liggéey maanaam ci wàllum commerce ci wàllum li nga xamante ni comme cordonnier tey euh, suñu gan bi nga xamante ni moom lañ fas yéene waxtaanal donc ak yeneen euh, corps de métier yi nga xamante ni daal dinañ koy am fii ci Sénégal wala daal nañ koy am ci àdduna gi donc ci loolu mbokk internet yi euh, donc sëñ bi dañ lay laaj avant tout d'abord ñu laaj li nga xamante ni maanaam suñu première question mooy nan nga def ba dugg ci métier bi lan moo la motiver ba nga dugg ci métier bi nga xamante ni mooy wàllum cordonnier te ñëpp xam nañ ni cordonnier dafa nekk métier bi nga xamante ni dafa noble waaye itam dafa nekk li nga xamante ni dafa daal di métier. waaw li ma ci dugal daal mooy dama màgg doon xale jàng ba sama njàng mujj ma ci sori ma bàyyi ko bëgg a dimbale samay waajur ma dem jàngi métier. ma jàngi métier loolu daal moom si dugal ma jàngi métier nag métier mi ma tàmm mooy samay mbokk yëpp ma gis ñu liggéey cordonnier di ci teral seen njaboot ma dugg si pour góorgóorlu ci yor ci sama njaboot moo tax ma dugg si ma dem jàng nag ñetti at yu mat sëkk ñu ber ma mën a yor sa comme itam nag ma jël ñeneen di leen ci former encore parce que boobaak léegi formé naa ci presque ay quatre cinq personnes yu mel comme man ay borom kër. Euh, ñu ñëwaat ak yow ci beneen laaj maanaam euh, ci loolu ban at nga nga daal di euh, dugg ci wàllu métier bi ak kañ nga defe formation bi nga xamante ni mooy wàllum cordonnier. 92 laa ci dugg waaw 92 laa ci dugg maa ngi def def naa si ñetti at ma beru après nag continuer di former ñeneen. waaw fi ma toog nii maa ngi ñett ñoo xamante ni maa leen di former waaw. nit. maa leen di former waaw. maa yor seen. yow fan nga jàngee. man Rufisque laa jàngee Rufisque. Tëngéej lañ ma ko jàngale waaw sama benn magu papa moo jàngal. daa benn école de formation bi nga xamante ni foofu nga inscrire wala maanaam ci bërëb yi nga xamante ni yu mel nii ko daal di jàng. non non comme nii la rek individuel la rek moom da koo jàng ba moo ko da ci formé waale këram la yor. yor ay ay élèves di leen former rek mais du école quoi moom këram la yor rek comme nii waaw. donc ñu déggoon ci say kàddu nga ni euh, da nga da nga jàngal ay ndaw yi nga xamante ni yaa leen euh, dañoo ñëw ci yow nga jàngal leen li nga xamante ni moo di wàllum ñi donc ñu bëggoon nga wax ñu tuuti nga laajal euh, nga nga laalal ñu foofu noonu. waaw parce que ñooñu ay responsable lañ kon man bi ma bi ma formé ba ma mokkal ba beru ki ma ki ma jàngal métier daf maa ber. léegi nag may itam may continuer gis sama yeneen rak ak samay doomi mag yoo xam ne dañoo war a yor seen njaboot ma jël leen may itam former leen te laajuma leen ci dara comme niñ ma jàngale rek maa formé ba ma mokkal ñu yëkkati xaay jox ma ne ma dama liggéey ma dem di liggéey ma man nag ma yël ñeneen nag fay bor bi jàngal ñeneen te fayeeku leen dara ndax dimbale la rek nit ki li nga am ci nga mën a dimbale sa mbo sa waaw mais nag li wolof naan may nit ki jën chaque jour nga jàngal ko ni ñuy nappee am naa ñoo xam ne mën naa leen a dimbale ma jàng leen li ma man ñu man ci suturu ci dimbali seen njaboot moo tax ma dugal leen ci ñoom itam nag ñu ngi formé ñeneen encore rek seen bi day gën di continuer rek. macha allah loolu euh, lu lu am solo la donc comme ni nga ko waxee rek balaa ngay may nit ki da nga woon nu muy nu ñuy nappee jën donc c'est très important ba ci réew mi bu ñu amee ñu mel ni yow donc di gën Euh, maanaam di gën a partager di di partager maanaam nit même boo amul xaalis pour maye mais aussi am nga sa xel am am nga sa xalaat am nga sa expérience yi itam mun nga ko féddale ak ñeneen ak ñeneen ak i jeunes donc loolu foog naa loolu dina gën a yokk li nga xamante ni moo di euh, koom-koom euh, réew mi waaye itam. Euh, économiquement dina ko yokk waaye itam li nga xamante ni moo di moralement dina ko yokk donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la donc ñu ñëwaat yow ak euh, beneen laaj euh, ci métier bi en fait. mën nga ñu wax tuuti lan nga ci créer en fait à part li nga xamante ni moo di wàllum cordonnier lan nga ci lan nga ci réaliser lu dul li nga xamante ni moo di wàllum defar daal la di ko jaay. ah xanaa beneen ay business rek parce que boo ci liggéeyee ba am ci dara ah nga gis beneen business boo xam ne mën nga cee dugg. boo ci mënee investir keneen moo xamante mën nañ ci jàpp moom itam loolu tax parce que boo ci amee loo xamante ni tamit xam nga xaalis moom kenn mënu ko denc boo doonee borom kër doon njaboot di ci dimbale sa njaboot boo gisee kenn koy xam ne mën nga ci jàppale mu defi leneen moom itam da nga dimbale ko ci investir ko mu dem liggéey ci leneen waaw. ok euh, ci loolu nag aussi tam est-ce que sa sa wàllum liggéey bi kenn mës naa taxaw wala état du Sénégal wala keneen ñëw jàppale la ci liggéey bi maanaam investir la nga mën a nga mën a gën a yokk maanaam ci sa wàllum liggéey est-ce que mës naa am. Eh investir non non non xanaa man ma dem man ma dem gis gis benn banque boo xam ne am naa projet dem fa mu financé ma ma liggéey di ko fay mais banque yooyu sax léegi lebalatuñu léegi ndax gis nga ko affaire yi fi ñu gis nga jamono ji ni mu naqaree nii métti na métti goo xamante ne gii ci borom kër moom ndax day day yaa ma gën a xam. daanaka sénégalais moom étranger yi lañ gën a jàppale ci seen doomi réew mais wax dëgg yàlla foncièrement local bi ñu nekk ni ñun bu la neexoon tey nga dem jënd fee ci chinois yi benn paire daal ma liggéey benn jox la nga xool nga soleen ñoom ñaar ba xam diir bi nu muy demee te man der laay liggéey boo xam ne day gën ci say tànk du la am di mititu tànk te fi daal yi étranger yi duggee ba léegi mititu tànk yi commencé ci loolu sax la ñuy jëm ndaxte gis nañ dàll étranger yi déjà fii ci Sénégal moom la ñuy gën a consommer te consommer local tamit dafa nekk li nga xamante ni nit ñi dañ ko war a jëfandikoo ndaxte mooy yokk économiquement suñu réew koom-koom bi maanaam jeunes yi du ñu ndaxte dina wàññi ay chômage dina wàññi lu bëree bëri ci ci wàllum ndóol ci réew mi euh, donc ci loolu ñu lay laaj yow sa euh, dàll yi nan nga koy defaree ak ban outil ba ban outil ngay defaree sa dàll yi ak naka nga koy defaree. waaw matière bi parce que Sénégal am na ma yàlla jégal liggéeyuñ fi leen même der yi nga gis ni kiwir yi ñun fii la ñu re Tabaski màggal gàmm. gis nga waaw ak ak synthétique. waaw mais gis nga xam nga màggal yi fii li fi dee ci nag amuñu benn usine buy produire der fii lépp Europe lañ koy yóbbu defar ko ñëw di ñu ko jaayaat ñu di ko jëndaat lu cher en même temps matière bi ñu liggéey muy toile bi chinois bi mooy ñëw di ñu ko jaayaat ba pare. di liggéey daal bi gën ñu koo yombale xam nga kon di ko jaaylu cher ba pare gën ñu koo yombale xam kon kooku ñun amuñu leen loo xam ne fii lañ ko produire mais bu fekkee bi der bi fii lañ koy defaree di ko fi liggéeyee dana am valeur. est-ce que dafa mel ni euh, su ma la déggee euh, maanaam Sénégal liggéeyuñu nga wax mais est-ce que Sénégal aussi euh, jotul que ni jeunes yi maanaam ñu mel ni yow ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ñu ngi yëngatu ci wàllu métier bi ñu jug ñu defar parce que affaire der ci fii la gën a baaxee maanaam fii la gën a amee ndaxte ñun dañuy utiliser ay der dañuy defar ay der ci ñun la gën a yombee que ni tubaab yi donc est-ce que jotul yi nii ngeen jug defaral seen bopp ay der. ngeen ngeen ngeen ngeen utiliser ko maanaam boole di defar ay dàll ngeen utiliser ko est que loolu jotul aussi tam si ñun ñun li ñu ñun amuñu boobu doole doole loolu waari gouvernement bi ñoo ko man ñun xam nga ne mos kuy jënd kuy jënd kuy dem di jëndi kiy jële di indi fii di la jaay boo amoon doo jënd si moom mais bu fekkee ne fii lañ ko defaree si biir dëkk bi fi leen reyee xar mi fees ko fi defare fi der bi jaayaat ko ci dëkk bi. chaque jour ñu ngi rey ay xar boo demee ci ci kii yi rek ci dal yi rek da ngay fekk foofu ñu rey ay xar. mais ni Sénégal ñu ngi rey. léegi nag der yooyu keneen a koy jënd importé ko si bato yi yóbbu ko Europe ñu koy fay defaraat. defar ko si machine defar ko matière def ko couleur bu leen neex indi war ko fi dañu ko jaayaat ñun te ñun fii lañ teree xar mi. waaw léegi yéen est ce que machine yooyu jotul aussi tam yooyu noonu ngeen ngeen jënd ci indi ko implanté ko wala ut ngeen euh, maanaam ngeen ngeen ngeen wut aide ci état du Sénégal mu wutal leen ay machine ngeen mën mu ñu mën a indi euh, machine yooyu noonu fii ci Sénégal ngeen mu a utiliser mën a defar der comme comme européens yi est ce loolu tamit jotul. bu ñu ko mu ko tëw moom xam nga ne amoo doole jënd machine ay 3 millions 4 millions yoo xam nga ne ah, chaque jour yéen a ngi am ay millions ci seen liggéey bi ah, waaw ñu ngi ci sant yàlla ñu ngi ci suturloo bu baax ndax jàmm moom fu mu nekk bu yeewoo rek am lu mu ndékkee rek war naa sant yàlla ndax am na ku ko amul mais nag am na fu mu sooxee am na fu mu sooxee bu baax ba dem na ba ci affaire artisan yi financement yi doon jox artisan yi am na ñëpp maasé wu man mi di wax a yow sama morom sama morom jotuñu ñaar dërëm ba fii ñuy wax a yow fukki dërëm dugul ci seen poste te ay artisan lañ dañuy former di former waate li ñuy liggéey ñun ñun ci la ñuy sol mi ngi nii daal bi ma sol maa ko liggéey sama jabar moom lay sol keneen moom lay sol xam nga kon kooku kon conseil ma local la dem jëndiwuma lu étranger di sol wala leneen mais jàpp ñu ci jàpp ñu ci de jàpp gi moom des na bu baax a baax baax a baax. waaw parce que artisan yi euh, ci ci loolu sax ci loolu sax euh, maanaam ci wàllum li nga xamante ne mooy dimbal bi nga xamante ne état du Sénégal war na koo mën a defal yéen artisan yi wala yéen cordonnier yi donc am na ñi nga xamante ni newoon nga yow jotoo ci financement donc ci loolu déggoon nañ ni euh, maanaam artisan yi wala cordonnier yi jotoon nañ ci ay wàllum financement lan moo waral aussi tam ba jotoo leen yéen ñu ci bëree bëri jotuñu ci wàllum financement lan nga xalaat ni que ni lan moo waral loolu en fait. Ah, loolu xanaa ñoom. ñoom ñu koy joxe xanaa ñoom lañ ko war a mën a laaj parce que ñoom waroon noon recensé ñëpp ne ku war a bindu demal nga bindu ji lañ waxoon def nañ ko de dañ ne woon ku bëgg a bindu na dem bindu ji ñëpp dem nañ bindu ji ah ñu tànn ñin war a jox jox leen léegi nag ñoom ñi maasé wut ñoom lañ war a laaj ba xam lan moo tax maasé wut mais bindu gi moom demal nga bindu ji def nga sa wareefu citoyen demal nga bindu ji nga dem bindu ji loolu rek la ah. mais est ce que yéen itam seen bërëb yi c' est reconnu par l' état maanaam est ce que am ngeen ay INEA ah am ngeen yeneen yeneen ak yeneen yi nga xamante ne ay kayit la yi nga xamante ni c' est valable maanaam nekkoo leen ci secteur informel bi donc est ce que mën nga ñu wax tuuti rek ci euh, maanaam ci lool noonu. si am nañ INEA am na registre de commerce yëpp am nañ ko waaw yëpp am nañ ko. waaw yooyu yëpp. donc inscrit wu ngeen ci maanaam ci registre euh, juridique bi nga xamante ni moom lañ tëral maanaam. waaw yëpp def nañ ko matale nañ lépp nombre yëpp mat na waaw mais nag ba tey daal joxe bi daal moom maase wul moom. est ce que bokk ngeen ci association yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Sénégal ci wàllum cordonnier wala aussi tam est ce que yéen da ngeen tijji association pour yéen seen biir maanaam yéen cordonnier yi. waaw ñun am nañ benn bu ñuy wax suqali métier mi association boobu ku ne xam na ko suqali métier mi. Ah, mi waaw. jàpp ci métier mu jëm te kanam boobu moom naan national la ku ne xam na ko fi. waaw léegi pourquoi pas association boobu noonu mënul taxaw mënul dem gisante euh, ki nga xamante ni muy état du Sénégal jàkkaarloog moom bokk réalité li nga xamante ni moo di euh, moom ngeen di jànkonteel ci wàllu métier bi aussi mi ngi def lim man mi ngi def lim man mi ngi dox ba sonn mi ngi dox xam nga gars yi ñoom Sénégalais moom ay daa bari ay fee moom bu la lay jox rendez-vous chaque jour mën naa teg xaalis sama sax ne la xaalis baa ngi nii mais pour mu jox la ko problème am waaw chaque waaw na la ko da lay dig lii ba pare te yaa ma gën a xam. est-ce que mën nga ñu won euh, benn paire dàll wala ñaari paire dàll aussi tam ñu xool qualité bi ak euh, naka ngay defaree maanaam sa. waaw comme ni may def nii ana sa waay mi ngi may jël gis nga ko defaree nii. lii lii lan lañ nii gis nga damay dagg par damay dagg matière bu bari la ma boole ko nii gis nga li ay ay sel la comme létt dama ko létt comme mèche gis nga ko nii man maa ko létt nii comme mèche waaw damay dem jënd toile bu mag. man maa ko defaral sama bopp machine laalu ci dara laalu ci lépp sama loxo la. tout est manuel quoi tout est manuel. lépp maa ko liggéey machine laalu ci dara laalu ci lépp man maa ko liggéey gis nga ko nii. matière bi yëpp Italie lay jógee lees la yëpp matière bi yëpp Italie lay jógee amu ci benn bu jógee Sénégal. donc ñun Sénégal amuñu dara daal. amuñu dara xanaa coow lu bari rek kese. ak matière première yi fii lañ koy jëlee. yóbbu ko. kol geeg gis nga nii daal la bi wax nga kol geeg lépp. Ah. lépp dara jógewu fii lépp oh, xanaa liggéey bi daal moo jógee ci dëkk bi moom ku ko liggéey moom fii la jógee mais matière bi dara jógewu fi amu ci lenn luy jóge senegal lépp importé lay doon bu ñëwee nag fii gars yi jaay la ko lu cher non kii simili cuir la simili cuir la waaw simili cuir la waaw. der bi comme der mooy der nga der matière baa ngi nii ñu teg moom mooy der waaw waaw bi loolu mooy der bi waaw te yooyu yëpp day cher importé la gis nga magasin bi nga jaaw yëpp importé la amu ci leen jóge Sénégal. mais euh, ci loolu nag est-ce que bu ñu jëlee lépp importé jël ko di ko utiliser est-ce que yéen tamit di ngeen ci gis seen bopp maanaam est-ce que di ngeen ci génn financièrement. waaw bu fekkente ne bi teel a ñu matière bi jóge bitim réew. ñu ko nekk ci consommé local bi ñun danañ liggéey loo xam ne waa réew mi danañ ko consommé normal ñu gis ci seen bopp waa réew mi koy sol gis ci seen bopp du am benn jafe-jafe Abdou Diouf mos a ko fay def am na fi année boo xam ne Abdou Diouf dane te leen ma euh, importé bi ñu consommé local ay saag ak yëpp ñu fii lay jógee ñu nga saag yi ngay gis ñoo koy liggéey lépp ñu ñoo koy liggéey. importé sax. déggoo li ma la wax lépp fii lañ ko defaree ci réew mi ay doomi réew mi ñoo ko defar waaw. kon kon mun nañ jàpp que ni xam-xam baa ngi fii ah euh, euh, maanaam potentiel baa ngi fii maanaam kii baa ngi fii daal en fait. Euh, maanaam jeunes yaa ngi fii aussi tamit xareñ mën seen liggéey mën seen boor donc euh, lan moo des mooy état bu Sénégal aussi tamit appuyer leen donc ci loolu aussi tam euh, ñu laaj la beneen question maanaam que yan jafe-jafe ngeen di faral di am di jànkonteel ci liggéey bi. jafe-jafe yi moom bari na comme li ma la wax nii rek ñàkk matière bi rek jafe-jafe la ndax matière boo jënd bitim réew moo xam nga ne jafe-jafe la ki koy jëli di ko andi ko neex la la koy jaayee yow kii dem jëli ñëw ne la nangam laa lay jaayee boo bëggee liggéey. foo nga jënd ko mais bu fekkee ne fii lay fii lay fii lañ koy defaree su la ne ma janaangam laa la jaayee nga bañ dem ca fan koy liggéeye nga jënd ko fa di nga ko mën a jënd normal mais nag ku dem jëndi andi yëfam fay ca bato yi andi def na nangam la lay jaay te bëgg liggéey bëggoo taxawaal da ngaa bëgg a dimbale sa njaboot da nga koy jënd nga liggéey pare nag liggéey ko Sénégalais am na ci ñoo xam ne dañ koy xeeb dañ naan fii rek la jógee daal ude dong la dem jëndi importé te importé yi baaxut moo fi indi mititu tànk yi léegi kenn doxatul alors euh, kenn doxatul dara doxatul fii ci Sénégal métti na ah am nañ nakkar aussi tam ci ci ci li nga xamante ni moo di état du Sénégal ci rôle am maanaam jàppale doomi aadama yi xettali leen maanaam ci seen wàllum liggéey donc euh, li métti na gis nañ ni ay nit yi nga xamante ni dañuy dem di di rey seen bopp ci géej gi ah dem di immigré te loolu yëpp euh, jaru ko ndaxte euh, dañoo gis ñoom itam li nga xamante ni ah maanaam lu métti métti fii ci Sénégal gisuñu seen bopp ci réew mi moo tax ñuy peut-être ñuy dem di di voyager di immigré te loolu nekk na li nga xamante ni aussi dañuy perdre ay jeunesse jeunesse bi nga xamante ni mooy mooy mooy mooy jeunesse ëllëg mooy futur euh, jeune bi nga xamante ni mooy yor dëkk bi donc ci loolu euh, mbokk internet yi ñu laaj la euh, sëñ bi ñu laaj la sa dernière sa dernière maanaam lan mooy sa kàddu gu mujj. waaw sama kàddu gu mujj mooy ma di gërëm ndax wax dëgg yàlla borom baax nga ndax ginnaaw da ngaa ñëw pour fësal li may def dama lay gërëm di la sant waru mënuma la koo fay ah parce que tey jii bu ma loon mag nga ma defal mais li nga def nii ñu bay noonu lay war def lii max daal mooy ñu jàppale seen doomi réew ñun ay jeunes lañ xale yu ndaw waaw jàng suñ métier ba mokkal ko di jàngalaate ni mécaniciens yi di formé ah soudeur yi di ko formé tôlier yi di ko formé ñun noonu la ñuy formé ñun fii kenn ku nekk boo paree di nga yor lu war a mat quatre personnes cinq personnes di ko jox añ reer ndékk yor njaboot ci dëkk ba waaw métier mi doo ci fayeeku dara da ngay jàngale métier tailleur am na tailleur yoo xam ne dañuy jàngale di fay ñun nag dañuy jàngale ci gratuite yore la sa lekk yore la sa naan bu événement jotee ñu jox la nga ñibbi bu tabaski jotee jëndal la xar jëndal say waajur loolu dong day liggéey ñu bëgg daal gouvernement bi jàppale ñu ñun xëccoowuñu dara ñun ku ñu dimbale ñu liggéey lañ bëgg dimbale liggéey demu dugguñu ci gaal yi languñu avion sàcc ñu fennuñu njublanguñu toog ci suñuy place di liggéey bu weer dee ñu fay atelier yi moomuñu ko dañuy fay lu aas b borom weer dee bu fay mu ñëw indi problème patante yaa ngi fi juuti yaa ngi fi waaw gis nga ñi ci biir yaa ngi gis ñu recensé fi ne ni pour jëlee ñu fii lañ bëgg nee nañ dañuy defaraat stade bi lañ wax. Ah, donc lii beneen cas la waaw loolu tamit loolu lañ wax. waaw beneen cas bi dinañ ci ñëwaat. waaw loolu lañ wax ne dañuy jëlee fii stade pour stade bi yi am fi 2026 te lii ci biiru stade bi la nee dañ koy defar mooy ñii di recensé nii loolu la ñuy recensé waaw. donc jërëjëf sëñ bi donc mu nekkoon li nga xamante ni ah, lu am solo la waxtaan bi am na solo ndaxte bëri na yeete bëri na lu bëree bëri donc lu ñuy ñaan ah, ki nga xamante ni moo di nguur gi di état du Sénégal mooy mu jàppale jeunes yi jeunes yi sonn nañ donc lii nekk na li nga xamante ni ñëpp a ngi koy joytu ndaxte nit ki ah, foog naa sa réew rek nga am donc sa réew rek nga am donc ñuy gis comme ni ma ko waxee ñuy gis nit ñi di dem rey seen bopp ci géej gi. di def leneen ak leneen di di sàcc wala di kii loolu yëpp euh, parce que dañoo amul ñi leen di jàppale donc il faut état du Sénégal tamit euh, mën a jàppale askan wi euh, socialement di nemmeeku askan wi xam aussi tam doxantu ci bërëbu liggéeykaay wala doxantu ci ci ci ci ci ruelle yi donc pour mën a xam jafe-jafe doomi aadama yi rawatina jeunes yi nga xamante ni ñooy créer ay emploi donc mu nekk li nga xamante ni lu métier métier la lépp a ngi fii comme baa ngi fii donc on a les mines les potentiels on a tout on a tous les moyens donc je pense que ni état du Sénégal lu ko desee rek mooy jëf jàppale askan wi donc mën a mën a jàppale askan wi te loolu foog naa mooy réussite ñëpp mooy réussite euh, li nga xamante ni mooy moom mooy moom ci jëmm boppam donc mu nekkoon li nga xamante ni mbégte la ak contentement donc euh, ñëwaat ak yéen ci émission bi nga xamante ni moo di mode beauté et ci loolu nag euh, ñu ngi jaajëfal suñu caméraman bu xarale bi mooy ku nekk ci digital bi di fàllu Fallou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal suñu concert bi di Anta Wade donc jox leen dig daje ci yeneen i jotaay donc restez connectés sur la chaîne euh, leader la TMS TV euh, d'ici et d'ailleurs donc merci beaucoup. dëgg-dëgg dëgg-dëgg ñoo gisee. ne Sénégal war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbal